mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci teewlu gi ak topp gi file ci Dakar Actu TV xibaar bu tiis ak bu nakari moom la ñuy jot léegi ni ñeel rek ci ñiy yëngu ci wàllum làmb ji ki nga xam ni nag moom mooy Salif Mbengue ñu gën koo xam rekk ci turu Gaston Mbengue nekkoon fi nag ab benn promoteur làmb bu mag moom rek moo wi ji tey jile ci bésub alarba yem yemook benn fan ci weeru mai atuma 2024 bi ñu ne ginnaaw nag ab feebar boo xam ne nag yàggoon na ko tëral la équipe Dakar Actu ak mboolem rek ñi fay liggéeyee ñu ngi koy jaale ñëpp rawatina nag ñiy yëngu ci wàllum làmb ji ak doomam jile di Makane Mbengue ci fàttali nag moom mi di Gaston Mbengue géejoon nañ ko gis sax ci écran yi ba rek ñu bëri di laaj rek ana lan moo tax rek kenn gisatu ko waaye daal li ni mel nag tey jile daal eh, mu mel ni daal tey jile nag jot nañu xibaar bi nga xam ne rek mu ngay firndeel rek feebar bi nga xam ne rek moo taxoon rek ñu géjoon ko gis ci petit écran bi